abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci asalaamaaleykum sama mbokki député yi monsieur le président assemblée nationale maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu monsieur le ministre di nuyu ñi ngi àndal di ci ràññee le directeur général Assirou di sant yàlla di gërëm see Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaane mun Muntaxa mu yàgg fi te wér monsieur le président assemblée nationale ñi ngi lay jaajëfal 2017 man ak yow ñoo bokkoon toog fii ñu xam si yow dal jubal jub nangoo liggéey kon lépp loo xamante nit wax na ko fii moom la engagé te ñu ngi koy jéggul en tant que représentant peuple parce que méritu woo yenn kàddu man monsieur président assemblée nationale li ma doon sëñ Tuubaa ko def waaye yenn kàddu yi dama koy ñaaw ñaawlu ndax jaxaseel ak population bi la sama collègue député bi wàcc fii léegi am na lu mu wax nee na bit sa assemblée nationale vingt milliards la d' accord vingt milliards la mais moom dana si am trois cinquante mille en tant que vice président dana si am deux cent mille francs en tant que indemnité de logement dana am un million trois cent mille dana am neuf cent mille li nga xamante ne mooy fonctionnement de voiture loolu dana ko am si bit sa bi pourquoi mun ñu ko wax kon loolu kenn ku nekk fii may wax ak yow da ko jot boo ko jotee loolu ci bis bi lay génn di ñaawlu yenn kàddu yi en tant que républicain en tant que maanaam doomu Sénégal dignement sama ñaari waajur yëpp fii la ñu dëkk Touba lañ dëkk sëñ Touba di sama maam bu ma dégg yenn kàddu may am gàcca monsieur le président assemblée nationale bu ma déggee yenn kàddu yi benn député taxaw di wax Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen Sénégal na ngeen boycotté weef bi nga xamante ni ay emploi ñoo fa nekk damay am gàcca te député bi ko fi la nekk kooku honte la pour république xeex politique warul xeex li nga xamante ni tey buñ boycotté weef dañuy manqué emploi ñu dàq ña fa nekkoon loolu tamit maa ngi koy ñaawlu maa ngi ñaawlu yenn kàddu yi nga xamante ni dafay xajjale presse bi ñu jëme ko si Maïmouna Ndour Faye ak tf maa ngi ñaawlu kàddu yoo te benn député moo ko wax il faut que ñu respecté peuple bi mën ngaa wax say wax pour jàppale ku la neex waaye doo wax say wax yoo xam ne da ngay mel ni Maimouna Ndour Faye mi nga xam moo kere 7 yi nekk jigéen dërmu kenn nekku si nga di ko traité wane ne maam dafa far fekk farul ñëpp la fi nekk maa ngi ñaawlu kàddu yooyu noonu te di ko soldaté ak moom ñun ay député la ñu képp ku def lu yoon ñu wax ko ku def lu yoon ndax ñun sëñ Tuubaa mooy suñu maam faalewuñu kenn ku dul sañ Bàmba monsieur le ministre maa ngi lay ñaax ci li nga xamante ni mooy baykat yi nekk ci côté Euh, Kébémer te seen tool yi nga xamante nii dan leen a jël ba pare joxagul leen dara te mbay mi war a ñëw kon bëgg naa ñu taxaw leen nu mu gën a gaawee pour ñu fay leen li nga xaman ne war a fay monsieur le ministre maa ngi wax fii en tant que député monsieur le président assemblée naa li am si dëkk bi yéen ñu autorité war ngeen si jël maanaam responsable parce que lion yi nga xam dañoo gagné coupe d'Afrique président de la république honoré leen may leen ay terrain am ñoo ay citoyen ordinaire yoo xam ne sama classe gi ci lu ñu bokk ñu jënd ay terrain benn maire Yewwi Askan ñu dëdd autorisation parce que jotul wàllam loolu dañ ko war a wax te fii boo demee fii nga xam mooy wakaam maire bi fa nekk nag mu autorisé benn autorisation construire parce que liy problème bi mooy nee na jotul wàllam ci suuf si kon du autorisé benn te man ma jënd sama terrain 60 millions war a tabax lions yi war a tabax loolu tamit war na see jëm ay matuwaay parce que lii nag ngeen di indi fii loolu war na see bokk république bu amul énergie mooy am bu république amul réew mu jax su lay am di lu taxawaay yi ñu ñi taxaw pour yàq berte ak terre bi monsieur le ministre bi loolu amee yëkkat naa sama kàddu wax ni tey bi loolu waree am da ngeen waroon jël arme bi ñu dem si berte ak terre parce que loolu ñun ñoo ko moom ñoo ko leb après Macky Sall ñun la fi nekkal nekkul fi kenn kon jàpp naa il faut que ñu conserver li nga xam ñu ñëpp ñoo ko bokk te bañ a yàq réew mi parce que bu ñu yàqee réew mi bu mu ko jël 2024 wala bu kenn jël 2024 lan la fekk lan lay defar kon il ñu sàmm lu ñu doon nit mën ngaa politique nit man ngaa wax andumaak yéen bu ma sañoon ngeen daanu